Saloum Ribo Escale moo aye le 15 décembre 2023 les jeunes leaders de la commune de Ribo Escale en action nga ni ma ana ñu namm lamb les jeunes leaders de Ribo Escale ñoo leen ko digoon dinañ ko def lamb mbapat Saloum ey waay Samba mari defar leen seen cumukaay bi lamb nar la ala daw mi les jeunes leaders defati ngeen lu rëy moo tax ma ni leen waaxu gëlëm xajul si pantere barki rasololaay Saloum war a amee fii ci Ribo Escale ñu ngi ko parrainé monsieur Malick Seck président ASC garab gi bu Koungheul l'homme de taille tchekeen monsieur Malick Seck borom xolu jama bi mani Malick Seck il est beau il est gentil il a de l'argent déggal ma les jeunes leaders ñi ngi woo ci biir gala de lutte simple le sous de Lour Escale Leïty Diouf di woo monsieur maire de la commune de Ribot Escale Madiama Seck si woo les conseils municipaux de la commune de Ribot Escale la jeunesse les femmes di ko yëgal waa Taïf waa Ribot Kodioli waa Bap di ko yëgal waa Caxaj waa waa Touba Gogo waa Ribo Escale ak li ko wër waa commune bu Lour Escale ak Génté Pathé bépp mbër bu dëkkee ci diwaanu département bu Koungheul woonee la ci biir làmb di ko yëgal tous les responsables politiques de la commune de Ribo Escale rendez le 15 décembre 2023 ca Ribo Escale